mbokk yi asalaamaaleykum li gën a fes ci ay bés bi saabalkat bi di eh, Pape Alé Niang wala taskatu xibaar bi di Pape jiite site bi Dakar Matin moom nag may ko liberté provisoire ginnaaw bi nga xam ne ay eh, weer nii wala ay semaine ngi tëj ko si eh, kaso bi di leen fàtt nag kii di Pape Alé Niang ñu yoo xam ne da ngaa génne si penc mi te waru ko ko bi ay weer di leen fàttali ba doon na def ab grève xiifal maanaam greffe de la faim moom nag ba ñu évacué foofu ca benn euh, hôpital nag Sinaal bi nag euh, dañ kaa delluwaat ba mu euh, tane ñu ko delluwaat foofu ca côté ca prison bi nag si lañ ko après nag si tey jii moom 4 14 décembre atum 2022 si lañ ko may liberté provisoire kooku di Pape Alé Niang doon saabalkat foofu ca jiite site bi Dakar. ñu leen jaajëfal baax baax ci topp gi wax ngeen di wéy di abonné waaye bu leen fàtte di activé côté notification bi vidéo boo xam ne jugal Thank you.